kon mbokk yi ehm, lii mooy li ñu ne woon dañ koy faran fàcce ñu bëggoon nag eh, mbooleem sénégalais yi xam ni lii lu doy waar la lu garaaw la ñu fexe ba ci suñuy jëflante wala li war a doon suñuy yitte bis ni ki tey mooy li jëm ci anam yu mel nii ndax lii mooy réew mi bés bu ne ñu fenkal ñu ay wax yoo xam ne amul benn solo amul benn njëriñ ci réew mi boo demee ci réew yi nga xam ne tey tabaxu nañu defaru nañu teewul bés bu ne suñu xëyee ci yu mel nii la seen waxtaan di nekk boo bëggee ràññeetle màndarga réew mu dellu gannaaw rek mooy waa réew mu ban yitte lañu am ci liy doxal seen réew nga méngale kook ban yitte lañu am ci li nga xam ne moom lañ tuddee fait divers débat politique bi ci lii la war a porter waaye du Moustapha Guirassy cravate bi mu sol diw oto bi muy dawal lii lañu war a waxee ndax lii tey jii dafa méngook bës bi nga xam ne ci la ñuy màggal wala dundal bés bi nga xam ne lorange bi gën a mag ci bi ñu xam ci loraange boo xam ne wala ci yi gën a mag yu am ci biir géej ci la bokk mooy keroog bi batalo joolaa di suux tey mu tombeek moom ñu bari sax newoon nañ ñu premier ministre warul organiser conférence de presse ci bés boobu ma jàpp ni nag organiser ci bés bi sax dafa am sens dafa am symbolique ndax li waraloon tragédie boobu weesuwul lu mel nii mooy autorité yor responsabilité yor alalu réew mi wala ñu def mbir mi fi ñu ko war a def ak ni ñu ko war a defee ñu ñàkk koo def ci càggante wala ci teef ba mu jur musiba. tey jii ñu ngi wax mbënd mi mbënd mi lan moo ko waral lan la ñu def ci at yi weesu yépp ci milliare yi nga xam ne nañ dugal nañ ko ci. da dul li ci ëpp ay nit a ko damm seen poos li ci ëpp ay nit a ko damm seen poos ngi wax mbirum xale yi jël gaal gi la ko waral est-ce que xam ngeen ni li gën a métti ci lii mooy mbir mi dafa am ñaari pàcc dafa am jël lu ëpp nëbb ko askan wi muy lu garaaw a garaaw te ministre de la justice ci wax léegi jël lu ëpp ñu ne loo jël rek war nga koo bind loo génne rek war nga koo bind nga jël téeméer bind ni juróom fukk laa jël loolu war nga askan wi war nga ñi nga xam ne wóolu nañu Sénégal ba jël seen alal di ko di ko dugal ci réew mi donte dañ ñuy labal nag waaye ki ngay lebal day fekk nga yaakaar ni mën naa fay waaye loolu benn pàcc bi rek la beneen pàcc bi gën a garaaw mooy gannaaw bi ñu defee loolu ba xaalis bi dugg milliards yi dugg mooy pexe yi ñuy def ñoom pour li bëri ci milliards yooyu au ñu yóbbu ko fi ñu waxoon ni fa la war a jëm ñu fexe ba détourné ko dugal seen poos loolu nag ci fan yi di ñëw dañ ci gën a génne ay détails ndax li ñu génne ci alal ci réew mi yéen a ngi dégg ay ay ay ay ay ay milliers de tonnes de de kilos d'or loolu lu tuuti la ci li ñu génne ci réew mi te lépp nag ci alalu réew mi la lépp ci alalu réew mi la waaye foofu loolu fu mu jóge xaalis bii ñuy wax waroon dugg fi mu war a dugg ñu dugal ko feneen fu mu warul dugg ba pare ndax sénégalais yi ndax suñu partenaire neleen jëluñu xaalis bu toll noonu waaye lu gën a néew loolu la moo tax débat bi ci lii la war a porté peuple bi laay waxal bu leen kenn divertirati ci wax bu amul solo lii moo tax sen Sénégal nekk ci niveau bi mu nekk lii mooy suñu défi ñun moo taxoon mu jaadu balaa ñuy dem fii fukki fan incha allah ndax dégg naa gars yi amuñu programme te projet